ñu wax ne xasida gi rek bokk na ci ay njariñam mooy sëñ bi da koo def mu doon julli ci yant bi sallallahu alayhi wa sallam te julli ci yant bi sallallahu alayhi wa sallam kenn ku ne dégg na li ci yant bi sallallahu alayhi wa sallam wax ak lim ci digge nga xam ne day far bàkkaar day tax a jege yàlla day yokk wërsëg day tax yemal xiyaam nga jege yont bi nga xam ne wax nañ julli ci yont bi sallallahu alayhi wa sallam benn yoon yool ba moog ñeenti téeméeri xaj ak ñeenti téeméeri jihaat ñooyam tiyaaba kon loolu yëpp mu ngi ci biir xasir gi rawatin nag muy xasir goo xam ne Sëriñ Tuubaa ko def nga xam ne def gi ko Sëriñ Tuubaa def rek yeneen ngëneel la ciy nekk ndax moom léppam suñu borom da koo nangu léppam suñu borom da koo teg foo xam ne tegu fa leneen nga xam ne moom waxal na boom ci biir xasir gi ne suñu borom jox na ma loo xam ne sama aada moo kawee jaamu yàlla sang yu baax ya waxuttali fii jumlatil xaadaati faw xamu naa ibaadika saadaati nee na sama aada rek moo kawee jaamu yàlla yi gaa yu baax yi sang yu baax yi kon nag ak jaamu yàlla am nu mu war a toll ak julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nu mu war a toll nga xam ne kon ngëneel yëpp mi ngi ci biir xasida gi waaye bokk na ci ngëneelu xasida gi muy xasida gi mi ngi bokk ci xasida yi nga xam ne moom la sëriñ bi mujj a def muy xasida yi nga xam ne ñoo tàmbalee xama sahin naa bi karamin muy 1322 ba ci ama wam sasin muy at mi sëñ bi ñibbisee ci ñibbisee Tuubaa muy 1346 nga xam ne xasida yooyu Seexul Xadiim wax na ne ñoo kawee lu ñu alxuraan ak xadis ci lu dogu te barke bu mag mi ngi ca barke boo xam ne néewul ci yeneen xasida yu dul ñoom kon loolu tamit mi ngi ci biir xasida gi nga xam ne mooy nur daare ni waaye bokk na ci ngëneelu xasida gi ba tey li sëñ bi wax ci biir ne yaa man jaxalta salawaatil naamiya ani masaafata suluki taw ya nee na julli yi ma julli ci yant bi sallallahu alayhi wa sallam ci biir xasida gi nee na julli yooyu ñoo tax a ñal ñoo ma lemal yoonu gaa yu baax ya nga xam ne kon dañ cey dégg mooy xasida yi kon dafay taxañ yoonu gaa yu baax ya waaye mu wax ci biir tamit ne wali am daahi jaalta ka jihaadi kulla mujahidin hadayta saktihaadi nee na sama tagg yi sama téere bi def nga ko mu mel ne jihaad bu bépp jihaadkat boo xam ne bépp jihaadkat tag maanaam def nga sama tagg yi sama xasida gi mu mel ne jihaad bépp jihaadkat bu mos a jihaad kon xasida gi am na doolay taxaw taxawaayu bépp jihaad bu nit ku baax nit ku jub mos a jihaad ba tey mu wax ci biir xasida gi ne wajxal kitaabatiya min sal yow mi fawqa salaatin qubilat wa saw mi na nga def sama téere bii na nga def sama mbind bis ni ko tey mu kawe julli bu ñu nangu ak woor bu ñu nangu waaye mu waxaat ci biir mi ne feneen wajxal tawaalifiya misla murshidin wa badani saxi wa xalbi absidi nee na na nga def sama ta sama taalif na nga def sama téere bi mu mel ne bépp murshid murshid mooy koo xam ne dafay gine nit di leen jëmale ci yàlla kon téere bi dañ ciy déggee ne kon mursid la am na taxawaayu taxawaayu mursid mooy mën a jàpp ci nit defar ko fóot ko ba mu set maanaam taqale ko ñaawteef yëpp ak ràng ko mboolem gën a li ba àggale ko suñu borom waaye mu wax fen tamit ne wàccaal bi jaahin azim hindaka xatti sururan daiman di jundika nee na maa ngi ñaan suñu borom maa ngi lay ñaan ci barkeb yonent bi nga xam ne dara jaam lu màgg la nga def sama mbind bi muy nekk mbégte ba faaw ñeel sa arme bi yow yàlla waaye mu wax feneen ne wajxal kitaabati bu saaraatin tëddumu lil muntaxa la si lahoo surtul xadim na nga def sama téere bi mu nekk ay mbégte yu sax ñeel yonante bi nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam man maay ki koy liggéeyal mu del wax feneen ne wajxal bihi xatti suróoran abada li jumlatil amlaaki yaa man xubida nee na ba tey na nga def sama mbind mu nekk mbégte ba faw ñeel malaaka yi waaye ba tey mu wax feneen ne wajxal kitaabati la dayka baaxiyaatin wa saalihaatin laa tasaalu naamiya na nga def sama téere bii di nuur daalin mu bokk ci albaaxiyaatu saalihaat yi nga xamee ne suñu borom wax ne albaaxiyaatu saalihaatu xëy na xëy na saawan wa xëyul amalan waaye bokk na ci dooley xasida gi ak ngëneelu xasida gi li sëñ bi wax ci biir ne wasrif bi xàlla xiina wal ahdaa ila siwaaya abadan odaa nang ma dàqal ci barkeb xasida gi saytaane ak noon yi ci des muy bakkan ak adduna ak bànneex ñu daw dem ci keneen ku dul man koy ñu déggee ne kon téere bi bokk na ci ngëneelam dafay dàq seytaane ak mboolem noonu yi ci des waaye sëñ baa ngi ñaan ci biir xasida gi ak julli yi mu def ci biir xasida yi suñu borom jox ko kun fa yakun ci rujul njàqare ci rujul lor wala coona wajlu bi haali abadan xaysu akun bila asan wala jawan kun fa yakun waaye sëñ baa ngi wax ci biir naan wajxal bihi xurufa tiil muqaddama maqbulatan barakatan muhassama nee na maa ngi ñaan yow suñu borom nga def xasida gii muy xasida guñ nangu waaye xasida koo xam ne tamit xasida guñ nangu waaye xasida boo xam ne barke bu mag moo cee ne kon bokk na ci ngëneelu xasida gi mooy xasida gi suñu borom nangu la waaye tamit barke bu mag mi ngi ci xasida gi waaye mu wax ci biir ba tey ne wajhal xurufaha bu saaraatin tuniiru xalbal lesi biha yu salli yaa muniiru suñu borom maa ngi la ñaan nga def arifi xasida gi muy ay mbégte yoo xam ne dafay leeral xolub képp koo xam ni mi ngi jàng xasida gi l'empêcher xa koo xam ni mi ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci biir xasida gi kon ñu dégg ci ne kon képp koo xam ne yaa ngi jàng xasida gi muy nóot daal ni suñu borom dafay leeral sa xol waaye mu nga waxaat ci biir naan war fax li man bihaa yusalli zikra wajbur lahul xaatira wasra sadra képp koo xam ne tamit mi ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam te di ko jullee ci téere bii yow suñu borom ma ngi lay ñaan nga yëkkatil ko aw turam na am tur ba ñëpp dégg ko waaye na nga ko may dënd bu ubbeeku ak xel mu dal kon ñu dégg ci ne bokk na ci ngëneelu xasida gi mooy dafay leeral xol ko koy jàng waaye da koy jox aw tur waaye dafay ubbi dëndam ba tey jox ko xel mu dal xel mu tey waaye ba tey sëñ baa ngi wax feneen di wax ne ubbi kitaabati la xut maa yasiidu masarratan la dayka yaa baaxi masiid bokk na ci ngëneelu xasida gi mooy dafay dolli mbégteem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye bokk na ci doole xasida gi li sëñ bi wax ci biir ne yaa man midaadiya jaxalta ka dima man maxawo xat soxidoo min xuddama yow suñu borom def nga sama daa mu mel ne deret yi nga xamee ne faat nañ ci xare ci gaa yu baax yee jiitu woon muy soxo daaw yi ba tey it kon min baa bi aw laa kon xasida gi nga xam ne ci daaju gonk bi ne moo ci gën a yey ba tey it mi ngi wax ci biir naan wàccaxal kitaabati ilayka xayda wàccaxal xayaati li nabi fayda na nga def sama xasida gi muy wommat nit ñi jëmaleen ci yàlla comme ni nga xamee ne comme ni ma lay ñaanee nga def sama dund gi mu nekk njariñ ñeel yont bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ma ngay wax ci biir naan wajhal bihi baxda salaatin wa salaam alayhi xatti jaaliyan kula salaam na nga def sama mbind mi muy wuññu bépp lëndëm lëndëm waaye bokk na ci doolay xasida gi ak gëneelu xasida gi ak daraja xasida gi la mu wax ci biir ne wajhal xuruf ya bihi xayra suruf yaa xayra man naadaahu xabdan bi xuruf sun borom maa ngi lay ñaan nga def sama araf yii araf yi nga xam ne moo nekk ci xasida gi nga def ko mu nekk gën gën ndàmb ba tey wax leen ne wax wàccal xuruuf yi muxjisaatin uxirat wa xayra xayraatin la day ko daxarat suñu borom maa ngi la ñaan sama araf yi nga def ko mu bokk ci kimtaanu yont bi salaa sama kimtaan yi nga xam ne ñoo mujj kon jàpp ne xasida yi kon dafa bokk ci kimtaanu yont bi salaa yu mujj waaye bokk it wa xayra xayraatin la day ka uddaxarat yiw yu ne suñu borom yiw yu ci gën xasida gi bokk ci yooyu te wàccalu fiñ tuwaa saa yu suñ tubaa ne suñu borom defal ma nangam daa fekk suñu borom defal ko loolu pare jox ko ndigal mu ñaan ba tey bokk na ci ngëneelu xasida gi li sëñ bi wax ci biir ne wàcc xal xaraatiis yi bi ñuy wa xale mi xayra xibaadatin wa xayra sunami suñu borom maa ngi lay ñaan nga def sama këyit yi ak sama xalima gi maanaam loolu mu ci rek mooy xasida gi mu nekk gën gi jaamu yàlla waaye nekk ci gën gi kirkiraan gën gi escalier boo xam ne ci la nit ki di jaar ba àgg ci yàlla mu del wax feneen nag naka ne laka alaya xidmatan tasurru xayra nabiin kalkal yi suru ne na nga def sama liggéey bii may liggéey yonent bi saxama muy bëggal yonent bi saxama nga xam ne moo gën ci yonent yi waaye ma ngay wax fay naan wajhal bi jaahil xafimi nasmi ahla ridaaka yaa musiilal kasmi suñ borom maa ngi lay ñaan ci barke ci dara yonent bi saxama dara jam ju màgg jooje nga def sama way wi mu nekk sa ngërëm li gën a màgg kon xasida gi dafa bokk ci ngërëmal suñu borom bokk na ci dara yi xasida gi mooy moom xasida gi mi ngi bokk ci ngërëmal suñu borom yi gën a màgg ba tey mu waxaat fenn ne waccaxal kitaabati ka kulli mursal yaa man waxabtali ujóor a rusul suñu borom ñaan naa la nga def sama mbind mii mu am taxawaayu wala mu mel ne bépp envoyé dëjë bépp yonante rek boo xam ne mursal la maa ngi ñaan sama téere bii nga def ko mu toll ak moom yow mi nga xamee ne nag yaa ma may yoolub yonante yi mu del waxaat fenn ne waccal bi jaahi muxaddamaati la day ka sarmadan muxasamaat yow suñu borom ñaan naa la nga def sama muxaddama bii muy nuur daal ndax sañ bi da ko tuddee muxaddama ñaan naa la nga def sama muxaddam yi mu nekk lu màgg fa yow comme ni mu ko waxee woon ci yàlla nga ilayka mini bu soroon fi xidmati lati alxadimu xaddama ilayka mini bu soroon mu xaddama fi xidmati lati alxadimu xaddama nga xam ne kon suñ bi tuddee na ko foofu mu xaddama moo tax mu ne wàccal bi jaaxi mu xaddamaa si dadayka sarama mosaat na nga def sama xasida gii mu doon lu màgg fa ci yow kon ñu xam ne xasid lu doon lu màgg suñu borom la waaye mu dal wax feneen ne waccaxal xilaam yi wa midaadi haadiya xidaay sante foqalaa baadiya na nga def sama xalima ak sama daa muy gind gindi koo xam ne képp ko am xel da nga xam ne lii lu fës la lu bir la lu leer la kon min baari awla xasida gi waaye it mu wax fenn ne waccaal kitaabati ilahi ahabba min kulli xatin wa yeneen mahit ahab téere bi bokk na ci yi gënal suñ borom ci mbind yi gënal suñ borom ak mbind yi gënal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom noonu daal ba tey muy wax fay naan waccaal bihi nasmiya saa sururin la umini aqbilil burara na nga def sama xasida gii mu nekk mbégtam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci ngëneelu xasida gi noonu daal muy mbégtam yonent bi sallallahu sallallahu alayhi wa sallam la ma nga wax fay naan waccaal bi jaayi naatin xattiya axlaa ridaaka xat arafta batiya na nga maa ngi lay ñaan nga ci barkeb yonent bi nga xam ne barkeem lu màgg la nga def sa mbind mi mu nekk sa ngërëm la gën a kawe yow suñu borom kon ba tey bokk na ci ngëneelu xasida gi mooy ma nga bokk ci ngërëmal suñu borom la gën a kawe